te Serigne Touba noonu laa ko defee ci moom ma cee tàmbali liggéey bi moom dal la sama xel lu ci jub ci ñun rek mën nga koy waaye teewul ba lépp la ndigal saa su àgsee.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 Sénégal jëlal nañ ko kon xew-xew toog noonu te xew-xew mu diine koy waaye itam wàllu koom-koom tabbi ci képp koo xam ne yaa koy seet du ko taxaw war nga saa accès nga feex ba fa nga tolloon daaw ba weesu bu déggee loolu nag màggal li koy jagal boobu boobu yaay ñun li ñu ci wax rek mooy léegi ndam ndam yi góorgóorlu ba àgg ci bis ba waaye loo koy jagleel loo koy defal moom bis bi ko loolu moom gëm nañ ko te sóoraat nañ ci liggéey mooy bis bu mag ne li ci ne boo agsee na ko ci ñëpp sant moo tax ñu di ci di di ko di ci def positif di ko seetlu. Euh, fii mu toll nag ñëpp xam nañ dayo bu mu toll ñu jóg nag ci tàbbi ci biir ndax CRD bi ñuy war def njariñ ndax defoon nañu CRD Serigne Ousmane moo ko jiite ànd ko waa comité bi yëpp ñu defaat CRD Mbacke moom itam jàng na ci jàmm CRD bi nag ci laa daa dem ànd ko bokk yi Serigne Serigne bi boole ci liggéey alors ba ñu tàmbali ko incha allah ba li topp ci liggéey lépp ñu ci war a ñu àgg kon nag màggal gi agsi na ren nag yàlla dafa def màggal Tuubaa bi ñu ko tàmbalee seen bi dénk ñu ko fañ ko tàmbalee ñëpp xam ne mooy conférence yi ñu ci daan defar xooloo yeeg xooloo yi par ñetti at lañ ko def ba fi ne bàyyiwuñ ko def nañ ko daaw jéeg kon day mel ko war a defaat ci ni ko comité bi waxtaanee ñu ngi ci waxtaanee ba déglu ci ni ñu ko nasee. yiñ ci daal def mooy forom yooyu yëpp itam gis nañ ko te am na njëriñ yëpp yaatal bi ñu koy yaatal bitim réew itam am na jeexit am na njëriñ ndax koy tàmbali màggal gi danga daal dem ba agsi ci biir màggal bi te ku ci bokk du xam waaye léegi yéene jën ci amoon mel na suñu borom fekk si leen ci suñu tubaab moom la doon a xëdëf ba di jubluwaay bi di objectif mooy màggal gi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 yàlla def tey nag liggéey bi nekk ci sama tool kon nag la sama kilifa nga defoon rek rawat na ma ko ci xalaat amu ci dogal amu ci bëgg-bëgg nu mu gën a rafet ak nu mu gën a baaxee lu ma ci xalaat rek ba ma jàpp ne nii mooy li tax mu gën a baax naa leen ko wax waaye lépp nga doon solo bi ma ko waxee itam ma ne ko ñu daal amul jënd yitte lu weesu bi nga bëgg nga am sëriñ Bakio itam jaar ko.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 ndax bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Moustapha bàyyi ko nag ba liggéey jumaa ji toll ci raase bi Cheikh Mamadou Fadi Mbacké di kii di ko àggale ci la ci dolli jóobu soxla bi mooy ci moom ne ko way di saatit bi fi Cheikh Mamadou Lamine ko Cheikh Sidi Moustapha Mbacké ñëpp yàlla suñu borom dolli seen leer daa suñu Cheikh moom nag mu am taw féexi liggéey bi nag tàmbali ci loxoom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 ñoom ñoo am yitte ju ju kawe ngir fas yéenee delloo Sëriñ Tuubaa njëkkal defal Cheikh Ahmadou Bamba euh, semaine culturelle nañ ko defoon 1979 ci jamono yu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu amaat yitte ak positif defaat ko moom dafa seen it bu ñu ko tàmbalee rek at mu jotati njëkk ko semaine bu lëmb la boo xam ne mi ngi tàmbali mi ngi tàmbali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 te sëriñ moom def na la mu def la ci des suñu jàpp si kon nag war nañoo yaatu dënn ba ñi nga xam ne xamul luñ mbirum Sëriñ Tuubaa ñu fexe ba xetuk sëñ bi xëy na ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi diin ba ca des mooy li rasulullahi sallallahu li ko suñu bi la waxoon ci alxuraan ne ko. fa bimaa rahmatin min allaahi linta lahum walaw kunta fazzan ghaliizal qalbi lanfaddu min hawlika kon nit ñi waroo yaatu dund am na ci thème boo xam ne ci loolu ñoom bisum bi mi ngi jëm ci kasbul xalaal te mooy fàggule yi ngeen di wax ne waxtaane la ak xidma ci biir yoonu murit ba ca des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 première safar bi itam xam ngeen li ci daa xew ci des seex sëriñ bi daal joxe ndigal ngir setal dëkk bi loolu itam buñ ci àggee euh, war koo yëg di sama defaat sëriñ bi nag waxoon na ma ne naa ko jot leen bokki taal bi murid yëpp rawatina ñi dëkk ci dëkk bi ci ndigal li mu joxewoon ci li weesu ci secret ci kanaan yi ndax loolu lépp <coughs> yërma yërmaane ju am ci yi dëkk Tuubaa rek la te xam ne màggal yi ñëpp xam nañ ne tàmbali ci nawet incha allah buñ demee ca seer bi nga xam naa bokk na ci rek fa war a gën a waxtaane ndax dëkk bi mbedd yi taay bari na kenn amul foo jaar te mën naa am mu tàbbi ci biir nawet bi xëy na yàlla rek xam ndax inna laa indahu ilmu saa taw bi kay dee ne kenn dee jeex suñu borom rek ko xam mm. kon nag li ñu ci war ci sababu fexe ba nit ñi mën a màggal ci jàmm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 loolu itam buñ ci àggee ni ñu ko daal di fi ñu lay ko defee waa Hizbut Tarqiyyah itam liggéey bi ñu daa def ñoom fas ko yéene tàmbali ci bis bu njëkk ci weeru safar mooy baas bi ñu def fii ren nag dañ ci am xalaat boole exposition ndax daaw dañ ko doon def dër ba waaye gis ne sori na ma xawoon a tarde ci xalaat nañ ne ma ci waxtaan ba tënk dañuy fexe ba njàngoom xaside ak bâche exposition bi dañ koy boole ci benn jataay ci benn bâche loolu dañ ko fas yéene am na nag seen xaar nañu yu ñu koy ñoom itam fas nañ yéene li mooy bu safara ñu tàmbali liggéey boobu ngir waa dëkk bi ko gën ko mën a jëriñoo ci biir itam waa day raw du waxtaan yi ñu baaxoo defal ci màgg bi ni ko baaxoo defee ndax ñaar la am na ci yoo xam ne mooy yi ñu RSD di ma teg waaye am na ci yoo xam ne dañuy dem ci penc sëriñ bi xam ne njabootu sëriñ bi mag mag yoon bi di seex yu mag yi ñoo fa dëkk di dem ba ci seen biir kër yi waxtaane fa kilifa yi ñu def ay gëstu yu yaatu ren nag ñu tànn ñoom waa daayira Rawdu Rayaahiin mooy sëriñ Daam Abdourahmane Lo nga xam ne ñëpp xam nañ fi mu féetewul sëriñ ci alxuraan ak sëriñ Cheikh Absa Mbacké ñoom kon loolu bokk na ci liggéey bi ñu njëkk a tàmbali ci safar bi bu demee ba màggal gi gën a jege itam ba bañ ne suba la ginnaaw suba la njàngoo alxuraan mi nga xam ne baaxoo nañ daa ko def itam danañ ko def ci penku jullikaay fi nga xam ne ñett fan taxaw te daara yu bokkut ñoo ko taxaw nga xam ne daara ñu jeexale sama morom ngir xam ne màggal gi lu ñu ci defal Sëriñ Tuubaa rek alxuraan moo ci war jiitu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 ci bisu màggal gi itam conférence bi raw du reexee daa def ci yor yor bi danañ ko def ak bi ñu baaxoo def ci bisu màggal gi ci guddi gi kon loolu bokk na ci programme yi nga xam ne danañ ko def mu door a jeexee nag ci cérémonie officielle ci biir loolu ci diggante yi rek am na ci yenn yoo xam ne ñu ngi koy tënk te noppi ci bu fekkente ne noppi na rek des nañ ko jot li ngir ngeen xam programme yi nga xam ne war nañ ko def ci màggal gi kon daal loolu bi nga xam bëggoon nañ ko jot li bokk ji bi bokk bi